daal kër gi sama kër am na sens intime. salaamaaleykum. père mon ami. hey Badara. Birame de Gare. noo def. mais ni cool. Eh, ça va si jàmm. Kenza. Ah, <laughs> bienvenue. Eh, hey Badara hey Badara. yaa gis nga de. waaye war naa mën a ne. ah maa la ko wax de. <laughs> Kenza. gis nga wax père daal mi ngi nii. Mhm. sama per la mais da nga naan sax ñoo ma. sama xarit la. ay morom la sama binoom sama lépp la. man ak moom amuñu lenn lu ñu nëbboo. waaw gis nga kii. Mhm. Badara mii bu doon dañuy football. moom mooy milieu terrain bi ndax mën a paas. waaye nag d' accord naa de. d' accord naa ngay paas di paas di amortir di paas di réceptionner di paas ba mu neex na nag. nga paas sa bopp. eh seen lii ngeen dugg see ak lii ngeen mel neex na ma de xam nga lu ca gën a neex. dama leen di sinap ba ñëpp xam ni couple heureux ngeen. couple la ay yéen ñaar ñi. kaay ma gis la. kaay ma gis la am lu war a dénk ñaar bañ a. ngeen ba dara. ñu war rek. ci ma ñëw kii. bul bouger maître loo bëgg rek woote nu indi la. ay ba ay ba baax na. problème père mais boy, waaw père xam nga luma bëgg xam. Dang ma maa wala da ma père dama bëgg ñu waxtaan moo tax ma es la homme loolu ko. yow kër sax da nga yóbbu. di pousse ko yor man man je comprends pas. père yow nag sa problème mooy sama père nga sama xarit nga sama lépp nga mais dangaa teyul waxuma ñëw fii waxtaan ne la fi mu toll nii yow xale yow képp la nii woon waxuma la lool. waaw ne la say at lu mu gàtt gàtt naa ci dagg fanweeri man sama fu ci at ba nu nii xale bii ma indil da koo gisul. Mhm. kii pour yow la. yow laa ko indil te xale bi naa sàcc wax la foo laal ci moom meew la. ba baat bii laa doon xaar nga ni. foo laal méew bi génn. kon yow kon yow yaa ngi koy laal. non mais man damaa xam li ma lay wax nag père nante laa ci town bi laa dëkk te nante nga noo xamee loolu. foo laal méew génn boo laalul méew du génn. pour wax la ne la xale la du marchandise bu yàqu. sama rek xamal laa la ba nga sama rek xool bu fekkente ni da ngay ànd xale yi di sëy ba pare di ma leen doog a jox naan àndal kii mooy dagg say at nga wax kii di tef xar mu ndaw foo laal mu baax doo def nga ma lii. mii. wóolu nga ma wóolu wóolu woo ma baax na amul problème. noonu dem nga dugg nga xale. non non non bu dee loolu la kay da ngay dëju ni. yéen costeel rek bàyyi ma ñëw waxal la ba pare damay bañ nga def accident de. Oh, booy da ngaa fàtte da ngaa fàtte dada man maa nangatu nga ma waxal yow kay di indi rek. est ce que di nga ko gérer ni mu waree. booy yow est ce que yow seen papillon gii taxul fi ne nii rek yow nga buudeewu. du loolu lii cosaan la. bul jaaxle baax na xaar nga ni foo bés foo bés may génn. wóolu naa la de. ah kii dina ko si man bëgguma di ko bàppam kese. yow de yàlla la bëgg. man mii. Badara mii la indi fii ci kër gi. ku mën a fen ku mën a yàq der ku mën a yàq jigéen koo xamante ni doxul dara ci lu du corruption à la femme. Ah maanaam moom na fekk nit ku baax mu bonal la xam nga lu mu la indee fii. Hmm. nee ma kii ma la indi wéetal ak moom. tëddal ak moom foo foowal ak moom ak ci gàttal nee na ab càggale ma indi ma ne ko ay ba batal li nga def nii ñaaw na de kii xool ko ni mu rafetee kii damay niru sa xale bu yaru xamul dara ba dara naan ngel ngel ngel ngel ngel di fen xam ba dara fen naa fen fen fen ba gisul ku mu fen mu taxaw di fenal boppam. yow moom moo la wax loolu wala yow yaa wax loolu. li may wax nii xam fi indi. lu tax mu bàyyi la fi dem xam nga du noonu ëffal waaye man du def loolu man mag laa. ma bëgg nag nga jël sa garde te defaraat sa toogaay ndax neexoo mi man de nit dey def loo fi de déglu rek déglu rek ni nga toogee sax fu ne nga rëdd fa déglu rek fu ne nga rëdd fa sa yaram bind ay loof ay yow laa noof ay bënn fu ne yëfi càgga la neexoo leen a dimbali. Ah, nit day def wax déglu rek dama lay conseillé yéen ñi alalu procureur ngeen seen yel mën naa gudd waaye ku dugg ci seen garde kaso la jëm génn nag nga dem sa yoon fii yëpp bu fi taxaw lu ko mooy. Hmm. waaw am nga lu mu ci teg nee na sa meew mii sa bakkan bi ku ko bënn ku ko bës meew génn sa óom yi ku ko bës meew génn sa lex yi foo bës ba dara fen naa fen a fen ba fen a jaroo fi dara waaye nag wax na dëgg. yéen ñaar yéen a yam. yow xamoo ku lay dimbale de. xamoo yow dimbali woo kenn ñaar ñëpp a yam. ñu sën a jóg. yow puus na ne sa caaya ju forox gi may wax ngay am looy wax. yow war ngaa wax yow bàyyi ma laa mën a am doxal. bu na gën a fekkoon bu na gën a fekkoon ma xët sa ndey ay marakis doo wax waaye rek neex naa dégg ndax fu ne rëdd nga fa yërn naa la sa diggante oom yi yëpp ay point nga fi def xool ko xottam yu mel ni ay nopp ngay fen kii yëguli ko Badara Badara Badara ngi lay affiché nee na nee na ab càgg la fi indi chim. Kenza nu mu demee noonu gérer nga situation. yow yàggoo ci biir de nu mu demee noonu. gis nga yow man duma seen morom bu leen ma jàppee seen fowukaay boobu noonu. mais lan yaa may dégg amul lan moo xew yow xam nga lépp yow nga andi ma fii di ma macro kii ba pare ngeen bëgg maa jàppee seen pute boobu noonu yow gis nga kii même muy mel ni brouette nii. may wax ngeen may wax seen waxu ñàkk fayda yow kii li ma wax yëpp yow yaa tax mu wax ma ko sa affaire ñàkk fayda yi bul ma ko defateeg sa verre yi ngay mel ni pus ma nii waaye nga ni ma jàll waaye yow. waaw déet père lan la wax kii non kii liy tax waruma koo bàyyi moom kese muy wax.

nga réglé yemme la sa pecc ci baara mbay ndax lopp tuuru gis nga mami avant muy jóge fii di dem France tegal na ma lépp waaye nag am naa lu ma ci jotoon na xam waaye lu ma ñorul ñoruma waaye nag lopp tuuru. mais yaay ndax yow xale bu góor bu toll na yow war a jël sa doole ji dem liggéeyi lu dul nga topp màggatum koroo ji di leen dugal ci tooxi na man nag dara mettiwu ma. lu dul li nga gëmloo Jóob moo ma metti di ko dugalloo ci loo xam ne bu doon sa baaya doo ko doo ko def waaw di ko naan loo di ko def loo lu ne pour lan waaw ndax melokaanam bi mu ñëwee fii ci biir kër gi boobu fit yow rek yaa ko am yaay man duma naan de naan yow boo doon sàngara yow naan nga ma waaw yow amoo xëy amoo gont amoo porte amoo place yow daal duul rek nga def muy métier. waaw man sama fëgg jaay yi may jaay nag. jaay yi ngay jaay da ko caa boole waale waaye yow ba dara xam nga lan laa la yëgal bis ni ki tey sa tànk bu mu fi tegatu fii ci biir kër gi nga naan da ngay seet jóob na nga arrêté ah. ay génn moom dinaa ko def mais bul jàpp ne maa ngi génn ndax danga dem a ma génnal kër gi hmm. respecté naa la lool fi may woo non duma la ci wuyu nag yaay. kër gi bu ma fi ñëw jóoba tax ndax dey sama xarit di sama lépp te moo ne woon ñaata yow nag ci li nga may woo duma la ci wuyu non duma la dépassé sama maman nga jóob nag bis bu ne ma teel sa tànk ci kër gi non ma téye sama tànk ci kër gi yaa ngi may traité de tous les noms d'oiseaux xas nga ma ba ma ne rot mais garaaw maa ngi géré maa ngi dem mais maa ngi ñëwaat kër gi nag moom non toogal dalal jàmm mais bis bu ma jóob tere rek non dootoo ma gisate. man ba may limi maam dama la cee boole. mu naan ma dama laa ruse naan boo rus boo ma rusoon kon lii nga def jóob doo ko ko def naan loo ko ba muy tërëf ñàkk fayda booy bëgg a dee xool ko jaay taar bi mu doon ñàkk fayda fii de moom dinga ma ko may moom ak noo ma ko mayee la moo tax joxuma cër la moo tax yow pour yow fu la neex rek taxaw fa ni ma fekk ma place sàngam. waaw père su ma la wooyee da ngay dal nag quoi. mais da nga xam ci lan laa ne. mais man sa kër laa jóge man sa kër laa jóge mais loo fay wut xaar ma man ba ma ñëw. déglu lii wax. man yaakaaroon naa ne yow soo waxee ba teg ku mami monu koo dindi te mami dindi gi nga ko dindi yaa ko may de ndax lan xaalis bi muy joxe. xam nga yow loo xamal ni da nga koy wax. mais nag bu demee ba Aida ma ñëw fa. mu jàpp ma di ma xas. di ma saaga. nee na man fenkat laa nee na man liggéeyuma damay sàcc damay tox yàmba. non dem na ba lii mujj nee na man damay naan sàngara. waaye eh, wooyu ma xamal lan la bul am sa lu naqar di ma ci dugal man. loolu la wax ke te nee na yaay sulaar bu mag bi. kan mooy naan ay sàngara. Ayda moo ko wax ah man. Eh, waxu ma ko wax jooju. mais Ayda moo ko wax ma ñëw sa kër mu xas ma wax ma lu ne lu bon ba pare déglu lii tere na ma kër gi nag. moo moo mën a fen nag. nee na bu ma ñëwati ci kër gi. ma ne ko nag kër gi yow indi woo ma fi kane woon ñaata ko ma fi indi. yow yow la tere sama kër. bis bu ne ma toogal dinaa toog yaa ngi dégg wax bi man nag ñëw ma sa kër bu ma fay ñëw yow laay seet ñëw ma fa kenn ku ne di ma xas di ma saaga di ma wax lu bon lu ne wax naa li ma lex loolu tax ma woo la fii. man man am na loo xam mosuma ko man man am na loo xam daal mënuma koo comprendre mënuma koo comprendre ba Badara Badara am na lu ma naqari say torop. te kër nag bu fay tegaat sama tànk day doon lu leer nag quoi man maa ngi dem sama yoon amoo jot fii di nekk fii di wax man naroon naa koo dóor dóor yi métti def ma ko. moom mais Badar eh man nit ki boo waxee moom ba pare da rek. mais boo taxaw boo waxee nit mais nit ki boo waxee ak moom ba pare da taxaw taxaw nga fii wax li la métti da nga war a taxaw Badara. Badara. mer na. mer na nag. jikko ji mën mosuma xamee Badara di nii mu mel. naan sàngara nag la ko wax da ngay naan sàngara ba pare naa man maay solaar bu mag wa doomu alaaji megi nji ni nag moom moo doon faax ci sama kër nag pour moom fi moom xamul ni bii kër gi dafay ne di sëy waaye takk naa ko xala bu yàgg moom sa bu fi defoon cent deux ans doo ëmb doo wësin yow avortement sax doo ko am maa maa ko maa maa toj solo boon takk la xala yow bàyyi la ci kër gi yow nga mel ni bëy bu dagg yow yaay gàllaaju kër gi laa la def dama laa saraxe téye kooku léegi nag ngay dugg ci samay garde bay wax kuy tux yàmba kuy naan sàngara di fen Badara mii mer na de am na lu ko ah, jot na nag doomu alaaji meng ji mu ñuus la yow ba boot la yow ba fii sama ginnaaw yow tey laa la ñuus ba boot la naan la naan la aayoo yow yow yow doomu alaaji meng ji maa ngi sa kaw maa ngi kaw xam nga lan laa la yëgal te nga réglé yemme la sa pecc ci baara mbay ndax lopp tuuru gis nga mami avant muy jóge fii di dem France tegal na ma lépp waaye nag am naa lu ma ci jotoon na xam waaye lu ma ñorul ñoruma waaye nag lopp tuuru man nag dara mettiwu ma lu dul li nga gëmloo jóob moo ma metti di ko dugaloo ci loo xam ne bu doon sa baaya doo ko doo ko def yow amoo xëy amoo gont amoo porte amoo place yow daal duul rek nga def muy métier. waaw man sama fëgg jaay yi may jaay nag. fëgg jaay yi ngay jaay da ko caa boole waale waaye yow ba dara xam nga lan laa la yëgal bis ni ki tey sa tànk bu mu fi tegatu fii ci biir kër gi. ayda ma ñëw fa mu jàpp ma di ma xas. di ma saaga nee na man fenkat laa nee na man liggéeyuma ma damay sàccak damay tox yàmba. non dem na ba lii mujj nee na man damay naan sàngara. waaye eh, wooyu ma xamal lan la bul am sa lu naqat di ma ci dugal man. loolu la wax kay. te nee na yaay sulaar bu mag bi. kan mooy naan ay sàngara. tere na ma kër gi nag. moo moo mën a fen nag. te kër nag boo fay tegaat sama tànk day doon lu leer nag ko man maa ngi dem sama yoon amoo jot fii di nekk fii di wax man naroon naa koo dóor dóor yi métti mais def ma ko. Badara. mer na Badara mer na nag. jikko ji di mu mel. naan sàngara nag la ko wax da ngay naan sàngara ba pare naa man maay solaar bu mag doomu Alaaji mee ngi maa ngi sa kaw maa ngi sa kaw sa bàyyi noonu sa bàyyi noonu sama kër ñaata ba xam da ngay dugal di génne mel ni da ngaa yilif kër fépp laay tëj ràpp nga xam ne danaa la ñuus ba nga tëdd bala ngaa te fekk ñuus naa la ba nga tëdd déglu na yow yaa fuuy yow yaa réew yow yaay kan yow lan lañ la wax ba nga topp ci nit ñi boo xasee tey kii suba nga xas kële ah yow yaa xamadi yow yëg nga sa bopp yow war ngaa fekk ba dara mu toog nga naan ko fenkat beeg sàcc beeg taxawaalukat beeg siboorukat bi ba man lay siboor man ndax yor naa lu nu ah mooy wax la nga ko naan katu sàngara bee wax ju ñaaw ju ne nga ko koy wax. tey yaa xamati ah yaa tey. tey ngay mujjee timbadal naan ko naan katu sàngara. Eh. dégg eh. muy yow waaye yow mi def nii eh. yow xam nga ne maa la mën yow. yaa ngay yow xam nga ne yow maa la mën. ponkal mi la yéene ay duma bu lay doo dina la yërëm. yaa ngay yow yow koo yab. xoola. xam nga yab laa wax. yaa may gaañ de xam nga yaa may gaañ. waaye ma lay rey nga naan ma lay gaañ. yaa may gaañ lóopu tuuru. damaa sonn ah. cër bi ma la jox la yaakaar dama laa ragal. ngir nit ñi man man naa ko. Ah, ah. tey laa lay door ah, a toog ci sa paa. gaañ yow ma lay rey. yow yow dañ ma jox sama cër yam yow koo yab ah. mu xool ko fitu Nescafé bi mu yor bu ne réel nag. nga yaakaar ne ponkal la daray fit nag yàlla mayu ko ko yow de dinga ma may jàmm ci kër gi yow yabaate ba bëgg a dee yow ba dara nga may dëkkalee naa ne ba dara day naan ak ay fameem maa ko wax yabaate ba bëgg a dee maa ngi xaarati ba ëllëg ba nga ñëwati ci taxaw fii ndax sagaru ba dara nga wax ma lenn yabaate bay bëgg a dee kii daal dama ko Yang lay gaañ ba ma lay rey nga daan ma yaa may gaañ yow foo toj aw yaa lay gaañ ah te bu ne réel nag nga ni ponka lay wax mami fituk nescafé bi nga yor cobra xam nga maa la cobra cobra ma ca mbedd français di daago di ndaa daa talax li cobra man man naa ko tey laa lay duma duma duma bu gis boo gisatee jabar des na ko Ah. wax lay daa ndax yow loo ëpp tuuru yow rek lay kii. lu ma ko bëgg a def rek xeeb naa ko naa ko bani. Ah, sim. waaw waaw kay xam nga la xam nga laale nga moket bi xam nga laale nga moket bi waaw ba mami ñëw. naaj

les goûts et les couleurs ne se foofu dafa jum booba amour taxul. mais xool fa nu ma. pare nga. mais lii lii amour la. pare nga. oui. laajuma la yow Badara li nga def nii nan nga ko mënee. mais yow baadoo la nga de nekk te yow nekk doo nit de yi nga def nii fu baadoo la dëgg nga fi def yow nan nga mën a duggee ci néegu jàmbur te doo ko aviser doo fëgg. xanaa jëkkër sax balaa dugg ci biir néeg dina fëgg. mais bébé sa discours bi daf ma xaw a jaaxal yaa ngi naan sama biir kër sama biir néeg depuis kañ la man ak yow am ay néeg ay kër ak yooyu ñoo bokk lépp di. da baaroo la kat di su ma duggoon ci douche bi génn fekk ma def yaramu ne lan wax lan. c'est Badara Kanté. naa la bu baax. bébé tey agressif nga de mais waxuma loolu sax yow sa téléphone bi kañ nga changé code téléphone la man sama diggante man ak yow am ay jox ma sama téléphone ak yooyu. sama téléphone bu ko laal di dénk sa yoon nekku ci. mais comment. dégg ma. bébé mooy problème bi. sa kanam gi rek lay bañ a gis sa kanam moom neexuma neexatuma sax neexuma te jël sa baat bi yeew ko nii ngay mel ni chihuahua yow lii lan la ni xam nga chihuahua mooy xaji ndaw yi noonu chihuahua yi ci kër yi. jàppal ni si moom ngay doon te actuellement nii moom rek nga may jox moom rek nga may jox instant bi te wax ci laa mënul instant bi dama war am gan taluma coow demalante bek ya ma neex bek neexuma la jugal nga genn sama da da danga may dak su tamuy neex jugal nga genn ba <laughs> je sat xaw ma da nga pen xaw ma da nga jogin xol ko limi def xol ko limi def. yow ku ma civiliser nga. jàpp sama lal bi di ko dëgg amatuma ben droit lal drabu bu weex li ngay badaw la yeb ki ni mako ko